Euh, mbokk yi ñoo ngi fii ci tubaa Samou Serigne Abdou Latif ci bis bi nga xam ne Serigne Moustapha Guèye moom alhaaji Serigne Amsatou Guèye daf ko woote woon tey ci altine ji yam ak fukki fan ak ñeent ci weeru mars fukki fan ci baraxlu ñu toog nii nag ak Serigne Gana Messere Baxtaar nga xam ne bis bii bañ koy tàmbali ci njëlbeen ba fii tey bis bi yegsi lépp moo ko Serigne Moustapha Gueye noo ko ànd ak njabootu El am Amsatou Gueye gépp waaye ànd ko ak waajur bu baax wa nga xam ne du ko fàtte mukk muy El Hadj am Amsatou Gueye tey jii nag xam ngeen ne Serigne Gana démb ba nëga ni mi ngi baagante ñëw fekk Serigne Moustapha Gueye fii ci Saam and ak moom bis bi na mu ko daan àndee ak moom ci bañ koy tàmbali ba fii bis bi egsi tey tey jii nag mu xëy siwaat nii àndewaat koo moom nu mu ko daan ci ci bëccëgu màggal gi bu ko defee nag dañ koy bàyyee kàddu gi mu ñëwal nu ci bis bi waaye ñëwal nu ci digganteem ak waaye juróom woowee nga xam ne ku ko fonkoon la ku ko bëggoon la koo xamante ni bi seere na ci ay jataay ci waxtu wu nekk ci cofeel ak bëgg gum am ci moom ak teg gum ko teg foo xam ne tegu fa kenn moom alhaaji sëriñ am sutugay ñaan su borom doole leen taas ci barkeem kon ñu déglu alaaji Gana Messere Maxtaar euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, Cheikh Moustapha noo ngi lay nuyu bu baax di la siyaare bu baax di jaarale ci yow nuyoo njabootu sëriñ Serigne Mabeye gi yëpp tàmbale ci Baye Serigne Mbacke Gueye mi nga xam ne mooy xalifa bi ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di ko ñaanal sëñ Mabeye mi nga xam ne moo toogee jataayu alaaji am surtout mu baax mi nga xam ne moom la ñuy fàttali ko waxtu wu nekk te la ndokkeel ci bis bi nag bu baax ni ko Cheikh Mahamadoul Makhtar mi waxee euh, bu ñu sañoon waxuma euh, ñëw di dem waaye dañuy ñëw toog fi na <clears throat> àndandoog yow lépp waaye yow moom xam nga yitte yi nu mu nu mu demee ci noonu te lépp di benn waar woo xam ne liggéeyal sëriñ bi rek la. bis bii nag ku fi ñëw dana xam ne euh, bisub ngëneel la bisub tedd nga la ndax ñin ciy fàttaliku di leen ci ñaanal kenn ku ci nekk taxawaayam ngërëmu sëriñ Tuubaa rek la doon sàkku ngërëmu sëriñ Tuubaa rek la doon wut seeni guddi ak seeni bëccëg. ba yàlla sunu boroom may leen ngërëm yooyee ñu doon sàkku tey loola doon ay jeexintal yu rogalaat ba wàcc ci njaboot gi yëpp waaye Cheikh Mamadou Moustapha mi it ci béréb bii nu ko fekk tey di Cham di daara ji nga xam ne euh, fi la ko way juróom wi daaloon mu nekk fi li sëriñ bëgg ci dëkk bi ndax sëñ Touba moom lim bëggoon mooy euh, nekk Touba di jàngale alxuraan moo nekkoon li nga xam ne moo di ak ak bëggam kon ku nekk ca loola doyoon na sëkk ab cër te ci yéen. mooy kii jàng alxuraan moom di ko jàngale. kon bu duloon a cërub sëñ Mor Assa ba du cërub sëñ maa béy bi yàlla na jaadu na ñëpp fekk si la fi nga nekk ndax tool bi nga nekk boo ca nekkee rek mooy bëgg-bëggu Serigne Touba rawatina nag boroom nga ngërëmul yàlla li nga xam ne jaay na dundam gépp jox ko Serigne Touba yàlla di ko jaamu ci ay guddeem ak i bëccëgam ba yàlla fayee ko doriyatan tayiba yi muy njaboot gu barkeel gi macha allah yàlla yàlla gën koo saxal. Euh, di xam leen nag jëmm jii di Cheikh Mamadou Moustapha li ci ñëpp xam rek mooy li mu woon ñëpp ndax moom yorut ñaari melo wenn melo rek la am ni mu mel ci biir néeg bii noonu la mel ci bu génnee ci bitti te loolu mooy lan baax mm, am yitte yor ji koy sang loolu la ëmbalanteeg ñëpp defe naa ku fi ñëw wóllare wu nekk bàyyi ko na fu ne ñëw <clears throat> ndax liy tax a jot wóllare lépp dana ko def dana ko dox dana ko wax dana ko jëf te da koo tàmbalee fi mu ko war a tàmbalee li ñuy wax ne bay ci sa yow tànk boo ñëwee jataay bi da nga fi fekk njabootu ala jam sëtu gépp wër ko waaye boo dikkee da nga fekkaat njabootu sëñ maa beeg yëpp kon buntu kër yëpp la ko war ci taxawaay jëf ñu rafet lool rek la ci jëf kon nag bis la boo xam ne it attan na lu ne ndax ñun koy defal ak moom mii ab taxawaay matale na lool kon nag fu waay mën na ne ci adduna bi di di seetaan wala ngay dégg boo mënul agsi it na nga na nga ci def ñaan bu baax a baax alaaji am surtout moomu nag nga xam ne dañ ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal euh, jëm ngi noonu joo xam ne li yàlla wax ne mooy jariñ ëllëg <clears throat> moom la ko suñ boroom defal mooy xol bu sel xal bul salim koo xam ne kenn xamul ñëgg-ñëgg xolam ci ab ci doomu xanaa lu naqari yàlla naqari ko waaye du lu doomu di mel waxtu wu nekk rek ma ngi lay tàgganti ma ngi lay joyanti te la ca gën a am solo mooy li ngay xamee ne yërmande lay àndeek nit mooy ci bi ngay bi ngay ngay ñàkk solo di di di néew doole ca la lay jàpp teg ca kaw ngir yërëm la ku bari woon yërmande nga noonu ala jam sut ku yiw ku baax ku yaatu ku tabe ku rafet jikko nga xam ne ni yàlla terale jëmmam noonu la terale jikkoom nekkoon koo xam ne lam doon samp suñu borom taxawal na ko ndax lii rek la bëggoon mooy tey bu ñuy tudd alquran di tudd sëñ Touba ak njabootam bokk ca te sëñ Moustapha mi représenté na la ci lu bari représenté la ci baax moom mii nag li ma koy wax El Hadj surtout bu doon ab bitig la sëñ Moustapha lebut yàqul marchandise maat dafa jënd ba mu jar yorul njëgam ndax nu doom di toppee way jur toppee na ko sëñ bi nu ab taalibe bi di toppee sëriñam it toppee na ko te toppee na ko ci biiru njabootam kon nag bis baa ngi noonu noo ngi koy waajal noo ngi ci ci biir li ci soñ ñëpp it di leen gërëm sëñ Baye noo ngi leen sant ñoo ngi jël nuyoo njaboot gi jaaree ko sëñ mbay mii nga xam ne moom it moo yor kaddu njaboot gi te sëñ maa bi eh, teg ko ci loxoom doyloo ko noo ci sant bu baax di leen gërëm incha allah ci kanam léegi rek bu ngoonee ñu waajal cérémonie officielle bi ànd ko kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom la ñu tudde bis bi duppe leen ko ak bokk bokki taali bi yeeg am di jàmm yi nga xam ne wóllëre yi ñëpp fekke nañ ko ñu jàllalante kàddu yu sant wéyalaat bis bi ba bët seen ni ñu ko baaxoo defee incha allah asalaamaaleykum wa